daf koo dalal waxtaan ak moom ba pare gendarme bi jox ko convocation bi Ousmane Sonko liir ko ba lépp yegg mu daal di ko koy delloo na ko convocation bi maanaam mënu ma koo jël yéen a kaay gi mu ñu xamal lan ñu ginnaaw nag Ousmane Sonko jëlul convocation boobu kon nag mën nañoo jàpp ne aljana bi nga xam ne moom la ñu dëgmal Ousmane Sonko di wujji léegi nag su wujjiwul commission ad hoc boobee mooy jàpp bis boo xam ne selay amal ab plénière ngir ñu dindi malaanu kiraayu a a moom la commission ad hoc réunion la ñu nekk ñun ak commission ad hoc bi réunion ba pareegul ana nan la mën a jëlee ab gendarme di ko jox ab convocation ngir mu yóbbul ko Ousmane Sonko ba tey ci biir yéen kaay gi mu xëy di ñu xibaar naan ñu Déthié Fall député réew mi niki démb seeti woon na Ousmane Sonko yéen kaay gi du source a nee na yi nga xam ne nekk ci kujje gi ñoom nag li ñuy sàkku ci commission ad bi maanaam ñu déglu ki nga xam ne bokk ci Benno ji dikk waa dig déglu nañu ko gardaa nañ ko fii yéen a kaay gi ne na jabaru Biram Souleye Diop Abbas Fall ak Dayru Thiam ñoom ñëpp ak ñeneen ñi ñu tegoon loxo niki démb am nañu ab retour de parquet altine ji nga xam ne moom la ñu ma la ñuy janoo ak procureur yéen a kaay gi de la Tribune xëy di ñu xibaar naan ñu gouverneur bu Ndakaaru daat nay tere lépp loo xam ne jëm na ci wàllum njaayum carburant ci ay bu bouteilles nee na fii ak ñaari weer bëggut gis benn station boo xam ne ma ngi jaayi carburant lu oto bu gaare wala moto bu gaare ngir jënd carburant a kaay gi na la nga xam ne moo tax gouverneur bu ndakaaru daal di dafay njort ne ay manifestation mën naa am ci ndakaaru li am ci yéen a gi di Sud Quotidien mooy ministère de l'intérieur jamono ji nag ñoo yor kaaraange ki nga xam ne mooy Adji Sarr ndax Adji Sarr ak kaaraangeem gars yi dañ see tiita moo tax waa ministère de l'intérieur ñoo yore ak kaaraangeem yéen a kaay gi di Walfadjri nee na en tout bi nga xam ne mooy Idrissa Seck ndax déclaration patrimoine am koy fàtte yéen a kaay gi di enquête ñoom Guy Marius Sagna waa Pastef féete ji Ndakaaru ñoom nee nañu nag àllarba ji xam ne moom la ñu daal di dëgmal danañu wàcc ci mbeddi Ndakaaru yi yéen a gi di 24 heures nee na en tout cas jamono ji daal état bu Sénégal ma ngi jàkkaarloo ak réew moo xam ne réew muy jax-jaxi réew mu nekk ci fitna yéen a kaay gi nee na coronavirus bi tax na Serigne Mountakha Mbacké Bassirou wax ne màggalu Kazu Rajab gi kenn ku nekk na ko amalee a kaay gi délibération nee na lu jëm ci wàllum relance économique a kaay gi di réew Sud Quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak Nabi Ibrahima Condé mi nga xam ne gën nañu koo xam ci philosophe Baye Fall moom nag ab artiste la boo xam ne ràññeeku na lool jël na ay médaille ay yoonu yoon ndax li nga xam ne mooy prix découverte bu RFI ci atum 2019 moom mii di Nabi Ibrahima Condé moo ko jël jël na yeneen prix bu ci mel ni nag prix francophonie prix bu Canada loolu lépp jël na ko wax na ci albumam bii nga xam ne Air Afrique la ko tuddee moom Nabi Ibrahima Condé nee na 2009 daal amoon na succès bu a rëy waaye nag succès boobee dafa bëri woon ko woon a na lu bari loo xam ne yàqal na ko ko wax na relation bi nga xam ne am na ko ak artistes yi nee nag lu jëm ci wàllum saagante gi ak xasante bi nga xam ne moo am ci rab bi amul lenn loo xamante ni daf koy defar maanaam la mu gën a gaaw kay mooy yàq yéen kaay gi di estat nee na Premier League derby diggante Liverpool ak Everton Paris Saint-Germain dina dalal Monaco Milan AC di dalal Inter de Milan yéen kaay gi di sunu lamb nee lamb ji danañu ko bi ñooñu ñëpp